dafa am texte yoo xam ne war nañ ko càmbaraat parce que boo xoolee engagement yi Sénégal jël au niveau international. Hmm. am na texte yoo xam ne boo leen xoolee ne sont pas conformes ak avec ces ces dispositions là. Hmm. boo xoolee réforme code pénal euh, de boo xam ne am na article yu bëri yoo xam ne ñu wax ci affaire terrorisme ñi ngi wax ay délits d'offense au chef de l'État. Hmm. ñi ngi wax ay délits de diffamation euh, atteinte euh, au fonctionnement normal des services publics day nekk ay yoo xam ne c'est des infractions vagues. vague waaye maanaam définition bi pour tout voilà fu da ngay ñëw rek yow pratiquement bu fekkoon amul ay limites rek. Mhm. autorité bi nga xam ne moo moom moo yore pouvoir mën na ci def lu ko neex. parce le champ d' application. est mhm. ba tax na réforme da ngay xool euh, préciser ci contenu article yi ngay bind. ba nga xam ne yow bu ko nit ci déggee seen sénégalais lambda bi jàngul droit yu xóot a xóot yooyu. Mhm. nga mën a xam nit bu jàngee français bu liiree mën a comprendre. c'est vrai xëy na sax droit moom dafa am langage particulier xëy na loolu nañ ko mën nañ ko nangu mais am na yoo xam ne pratiquement boo xoolee euh, délit de presse ak yeneen affaire yoo infraction liée à l'internet yu si bëri yoo xam ne définition yi dafa des. parce que dañ euh, parce que dafa am oui c'est vrai xam na nit euh, boo xoolee. ku nekk am ngay àq yelef yoo xam ne c'est des textes yoo xam ne ñoo dépassé loi nationale ñoo ko ñoo ko prévoir lu mel ni ay pacte international relatif aux droits civils et politiques déclaration des droits de l'homme yoo xam ne internationale am Sénégal da ko da ko da mm. bu ñu légiférer rek war nañu bàyyi xel textes yooyu mm. parce que euh, loi jógul ci ci yàlla jógul ci asamaan nit moo ko defar mm-hmm. mais nit kooku Euh, du jinne du malaaka mën na juum mën na am interprétation boo xam ne it avec le temps moom ñi ko def sax mën na ñëwaat ba ne ah man lii defoon naa ko mais vraiment c'est pas c'est pas bon ko mmh. ba tax na réforme bi euh, je pense que dañ ko war a teylu mmh. euh, sóoraale ci vraiment secteur yëpp yi nga xam ne ñooy état parce que justice comme li ma la wax rek dafa yàgg mmh. secteur boo laal boo bëggee takk jabar yaa ngi wax justice boo bëggee ngénte sa doom am kii certificat de kii extrait boo bëggee jënd terrain justice tabax ko justice maanaam dafa yaatu. ba tax na war nañ ko assainir. Mhm. Euh, vraiment tëggaat texte yi muy décret muy ay loi ñu xoolaat vraiment yi nga xam ne euh, vraiment sont devenus obsolètes. parce que boo xoolee même dans le code <laughs> pénal am na disposition yoo xam ne. Mhm. boo leen waxee fi mu toll nii gars yi dañuy daw seet parce que gars yi yàgg nañu ko dégg. Mhm. mel ni ay affaire minorité dinañ la. Euh, mineur de 21 ans nangam nangam corruption de la jeunesse xam yooyu yëpp nekk ay délits yoo xam ne xëy na gars yi bàyyiwoon nañ ko bu yàgg wala sax bàyyiwoon ci woon xel c'est vrai que la loi tant qu'elle n'est pas applicable mais nag il faut ñu xoolaat vraiment contenu texte yi naka lañ koy bindee hmm. ak est-ce que texte bi ni ma ko jëlee dans les pays européens là indi ko fii nii dans le compte est-ce que c'est pratiquement ce a besoin la population hmm, c'est conforme à doo ñëw rek ramasser rek. dans la précipitation même criminalisation bi ñuy wax dooñu xëy rek ne criminaliser parce que pour satisfaire le besoin d'un groupe déterminé. Mm. parce que ay nit jóg nañu rek fi pour wax rek nga daw criminaliser faut faire attention parce que. criminalisation c'est très dangereux parce que procédure bi. boo changer benn infraction en crime rek changer nga procédure.